nga xamante ni jàpp na ko ci àllub Casamance bi loolee nag daat nay tax fi nga xam ne mooy Gàmbi nee ma Banjul pénurie yamba moo am fi nga xam ne mooy Banjul la nga xam na nag moo ko waral mooy opération yi nga xam ne militaire yu sénégalais na nañu koy def ci àllub Casamance bi ndax ay toni toni yamba la armée bi teg loxo yéenekaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu ci àllub Casamance bi dafa am nag ay jàmmarloo yoo xam ne moo amoon diggante ñi nga xam ne ñooy trafiqué lu jëm ci wàllum bant ak nag ñi nga xam ne ñooy agent yi liggéeyee ci eaux bi nee na agent yi nga xam ne ñoom lañ dénk wàllum àll bi ñoom nag daan nañuy rey benn trafiquant de bois yéen kaay gi nga xam ne nag mooy libération xëy nañu xibaar lu doy waar doy waar loo xam ne ca hôpital Amadou Sakhir Mbaye ba ca Louga la xewee ndax dafa am benn jigéen boo xam ne dafa ëmb ba toll ci juróom-ñeenti weer ñu yóbbu ko sa hôpital ba ñu war ko césarienne waaye nag 9h30 ci suba ba juróomi waxtu ci suba nag jigéen googee kenn lalu ko maanaam muy dund ay jafe-jafe yu métte métte métti dafa mujjee ñàkk bakkanam astu soxna la tudd journal bi nee na ay waajuram nag ñoom jamono ji li nga xam ne moom la ñu sàkku maanaam yoon def liggéeyam ci mbir mi ndax ñoom dañoo gis ne dañoo sàggane seen doom joojee ba jigéen ñi nga xam ne ñoo bokk ci parti bii di LD Debout ñoom nag ñaawlu nañ bu baax a baax sunu ressource yi nga xam ne jamono ji pouvoir bi dañu koy tong-tong jigéen ñi nga xam ne ñoo bokk ci LD Debout ñoom nee nañu président Macky Sall diwlin gi dafa cher ba maara day tale nee nañu Macky Sall suukar si dafa cher ba maara day tale nee nañu Macky Sall ceeb bi dafa cher ba maara day tale jigéen ñi nga xam ne ñoo bokk ci LD Debout ñoo koy wax ma ngi ci journal bi di exclusif yéen kaay gi di Le Quotidien xëy duñu xibaar naa ñu ajug màkk ak ren gi lu toll ci benn million ci ay jullit ñooy aj màkka li nga xam ne nag moo ko waral mooy coronavirus bi Sénégal nag ab kotaam 4736 la yéen kaay gi di Rewmi Quotidien xëy duñu xibaar naa ñu coalition Yewwi Askan Wi ñoom nag taxawal nañ ak kuréel goo xam ne réseau des élus locaux du Sénégal lañ ko tuddee maanaam kuréel goo xam ne ñi nga xam ne ay maire lañ bokk si ñoom ak ay conseils départementaux bokk si ñoom ñoo taxawal googu boole kuré la waaye nag nee nañu ubbi nañu ko ngir ñeneen ñi nga xam ne ñoo bokk ci opposition bi buñ si bëggee dugg yéene kaay gi di vox populi ñoom Ousmane Sonko Khalifa Sall nee ñu nag lu jëm ci wàllum yokku député yi ñoom seen yoon nekku seen ndax na kenn tàgguwu leen si kenn tamit laaju leen seen xalaat waaye nag ñoom sàkkuwu ñu benn yoona ngir nag ñu yokk li nga xam ne mooy budget assemblée nationale nee nañu Moustapha Niass xaalis bi nga xamante ni rek moom la yore lu ëpp fanweeri député mën na koo fay yéene kaay gi nga xam ne nag moom mooy le soleil nee nañ njiitu réew mi di président noppul réew la ci élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la Macky Sall jàjji na waa Benno Bokk Yaakaar ne na leen ubbeeku leen oyof leen jege leen askan wi yéen a kaay gi di bés bi jiitu réew mi ne président Macky Sall nee na waa Benno Bokk Yaakaar li nga xam ne moo ëpp solo ci xeex bi ci combat bi mooy benn Bokk Yaakaar gagné élection législative yi fi nga xam ne maanaam mooy dakaar yéen a kaay gi de la sa nee na Macky Sall teg na nag ab plan ngir gagné Dakar yéen a kaay gi de la Soleil xëy dañu ñu aéroport bu Saint-Louis ak bu Ourossogui Matam jamono ji na nag na ñoo wax ne lépp yembu na équipement yi nga xam ne moo war a dem ca aéroport yooyu jamono ji nag maanaam jot nañ si ñoo ngi koy testé ci république bu Tchèque yéen kaay gii di réew mi quotidien moom xëy di ñu xibaar nan ñu bureau politique bu parti socialiste samedi ji nga xam ne moom la ñu génn daat nañuy daje yéen kaay gii di sud quotidien nee na parti socialiste def nañ ndëpp laas yéen kaay nee na daje bi nga xam ne waa parti socialiste daje woon nañ ko maanaam réunion la boo xam ne mbir ma tàngoon na jër am na ay cadre yu bokk parti socialiste ñoom nag nañu bëgg ñoo dem ci élection législative yi di ànd ak Bokk Yaakaar ñoom dañoo bëgg dem ci élection législative yi si bannièru parti socialiste yéene kaay gii di libération xëy dañu xibaar naan ñu ministère bi ñu dénk wàllu wér-gi-yaram gi nee ma ñoom Abdoulaye Diouf Sarr daal nañuy yóbbu nag ci week-end bi ay scanner ci hôpital régional bu Kolda ak hôpital régional bu a jamono ji nag ñoo ngi installé yooyu la scanner journal bi nee na l lépp nag ma ngi ci programme relèvement des plateaux techniques ne ministère bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ke jamono ji moo koy doxal yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy na génn ñu réew mi yóbbu ñu ca diwaanu France journal bi nee na Emmanuel Macron ak Marine Le Pen jamono ñoom ñaar ñoo dem deuxième tour ci élection présidentielle yu français yéen kaay gi nee na ca diwaanu Gambie foofe nag Adama Barrow organiser na élection législative yi waaye amul majorité ci assemblée nationale yéen kaay gi de la Tribune nee na jamono ji nag presse Sénégal bu ñu bëggee mucc il faut ñu joxante loxo lu may lool rek presse bi dafay naax